nuyu bu baax a baax ci kaw bokk maa ngi kontaan euh, teewaat hmm. di nuyu mes amis et euh, di constater parce que aussi euh, décision malgré décision coow yi ci amoon yëpp hmm. les gens oublient que présumé viol la et Ousmane Sonko était présumé innocent par rapport aux accusations jusqu'à preuve du contraire maintenant le droit a été dit par rapport à une situation et nous tous nous devons constater su nekkee dañu nekk ay républicains. Mm-hmm. parce que décision de justice pour man ku nekk mën na ci interpréter mais pour man nit duñ ci discuter. c'est vrai le débat était sur la présomption de sur présumé depuis deux ans parce que aussi la dame avait porté plainte pour viol et menace de mort. Mm-hmm. mais porter plainte pour viol et menace de mort ne signifie pas que viol am na ne signifie pas que menace de mort am na donc ba ñu demee ci yoon yoon wane na viol amul yoon wane na menace de mort amul mais wane na am na leneen lu am lu dul viol ak menace de mort mm-hmm. n'est-ce pas donc dossier dafay évoluer sur cette question la